ndodd Ousmane Sonko euh, foofu li la war a jëm maanaam ñu jël ko euh, daal di koy ngalaale ci euh, ndoddam moom nag ñu ngi ko jàppoon sax ci bintu siège bu direction bu impôt et domaine ni ki le 18 avril ci weeru koor gi la woon waaye nag ma ngay bëgg a yàgg booba léegi ci kaso gi leneen loo xam ne itam fas yéene nañ cee ñëw sax mu di li nga xam ne moo am ca Maroc ndax nag ndimbal yi door na gis nañ la xalif général des Mourides mu daal di wax ne lu tolloog téeméeri million dina leen ko dimbalee waaye itam réew ñuy fas yéenee commencé nag di euh, def aide boo xam ne à l'international euh, lañ ko euh, war a jëlee ngir ñu dimbali ji ñi nga xam ne ñoo nekkee foofu la ci Maroc beneen mbir boo xam ne am na mu di candidature yi am ci coalition Benno Bokk Yaakaar gis nañu ni ki démb El mu du Diaw ñu gën koo xam ci Mamboy Diaw mu annoncé sa candidature daf ko annoncé rek tuuti ñu daal di gisaat ñu ne limogé nañ ko ci CDC CDC googu la nga xam ne yàgg na ko jiite mm-hmm. daanaka ba mu jógee ci impôt ba léegi moo jiitee li nga xam ne moo di caisse des dépôts et des euh, leneen loo xam ne itam am na euh, ñu ngi doon wax waxu Abdoulaye Daouda Diallo mais ba léegi déggaguñ ko mu wax ce qui est sûr aussi mooy gisaguñu fenn fu mu démissionné en tout cas ñu ngi koy annoncé ak yooyu yëpp mais sànq ba léegi moom la ñuy vérifié euh, y' a en tout cas de démission officielle boo xam ne bu Abdoulaye Daouda Diallo selon même des sources proches yoo xam ne am laaj nañ leen loolu la ñu ci wax keneen muy Rose Wardini moom itam daal dinay jug nag yooxu sàccee ndax nee na euh, dañoo daal di jël li nga xam ne moo di ab euh, nouveau parti maanaam euh, nouveau bi nga xam ne moom la def Sénégal nouveau autant pour moom la ki la di Mamboy Diaw def plagiat <laughs> loolu nag di leneen loo xam ne itam am na ci actualité bi ak li xew ca Xosanto ndax maire bu Xosanto nee na moom itam day déposer ay plainte ngir rek li nga xam ne moom lañ def ci ab dëkkam mu ne je déposer une plainte au nom de ma famille euh, pour que euh, pour qu'on nous éclaire euh, sur les circonstances dans lesquelles ces deux personnes ont ont perdu la vie mu ne je rappelle que l'une des victimes est mon frère il faut que justice soit rendue dans cette affaire maanaam rakkam Mm. la ñu daal di faat moom maire bu xosantoo ci mbir yi keneen ki ci des nag nee nañu sax du euh, doomu réew Sénégal mu di mbir yoo xam ne am na fa ginnaaw ba itam gis nañu le gouvernement rawatina le ministre de l'intérieur mu ànd ak délégation daal di fay dem ngir euh, massawu ji leen xool itam mbir yi euh, décret arrêté bi nga xam ne moom la ñu defoon itam nee ñu daal nañ koy retiré awa Diop Ndiaye xam naa loolu mooy doon Issa point bu njëkk bi ñuy waxtaan ak suñuy gan mais laataa ñu ciy sóobu rek dañuy interpeller Pape par rapport ak dossier Bassirou Diomaye Faye pourquoi tey ñu bëgg a def jonction ce dossier de Bassirou Diomaye Faye ak bosu ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko et tout le monde sait que Bassirou Diomaye c'est à travers benn publication Facebook moo taxoon ñu teg ko loxo buntu DGID Pape Sané waaw euh, waaw merci encore une fois ci jàngat bu simple euh, wax fa dëgg yàlla déjà arrestation euh, basiru Diomaye Faye son incarcération après son inculpation et tout dafa poser woon problème poser problème dans la mesure où Bassirou Diomaye Faye c'est un haut fonctionnaire des impôts et domaines mm-hmm. euh, def benn post dañ ko jàppee incriminé poste bi weddiwu ko bañu ko il a assumé nee mooma mm-hmm. alors ci wàllu yoon lañ ci jàng as dañ jàpp ni que nag loolu bu amee la ñu waroon def mooy yóbbu ko directement àtte ko dañ naan flagrant délit comme moom nangu na ne baa ngi ne te bi il est ñëpp gis nañ ko mais dañ ne déedéet instruction nañ koy yóbbu ko fa pour outrage à ci boobu noonu euh, Issa ma ngi rappelé date bi. ñu yokk ci le 18 avril ah. le yokk ci yeneen chef d'inculpation alors le simple coïncidence la wala c'est un plan bien ficelé l'histoire va nous édi euh, va nous édifier après. une chose est mooy c'est bizarrement au moment où au sein euh, de la presse ñiy dégg la possibilité d'un plan B au niveau de Pastef bizarrement ci moment boobu nañ ne kii di bassiru Diomaye le juge d'instruction décidé na suite à une ordonnance de dessaisissement jël li ñuy wax dossier am ak dossier Ousmane Sonko def ko jonction est-ce que Pape foofu sax laa bëggoon a euh, interpeller la ci euh, euh, par rapport ak nit ñuy def suñ ne jonction des dossiers est-ce que du ay risque ci probable wala peut-être possible candidature bu Bassirou Diomaye Faye à la présidentielle waaw moom laa wax comme ñoom déjà jàpp nañu bu ñu déggee kii nga xam ne mooy professeur Ismaïla Madior mhm. Fall moom ci jàngatam moom moom droit droit <laughs> moom nee na Ousmane Sonko mënatul nekk candidat parce que l'affaire Adji acté et acté mooy maanaam c'est fini c'est définitif fàtte na ni que Adji Sarr def na appel mhm. fàtte ne ni que Ndeye Khady Ndiaye def na appel mhm. sans parler de la contumace mais pour moom moom professeur Ismaïla Madior Fall nee na ce dossier est muy benn ñaar mm, Issa pour répondre à ta question moment ba ñuy wax justement di soulever la pertinence d'un plan B ñu xalaat ni ko kon bu naree am nul n'est plus placé que Bassirou Diomaye ñu ne kon nag bu ñu jëlee dossier boobu dossier waaw bu ñu jëlee dossier bi nga xam ne mooy dossier Sonko un dossier bi nga xam ne très lour hein soo ko xoolee euh, extrêmement lourd ñu jël ko dugal ko ci biir dossier boobu mooy que on a la possibilité ñoom ñaar ñëpp fexe ba du ñu bokk donc tey jii pour répondre à ta question mm. effectivement su doon dañu naroon candidater ou bien proposer la candidature de Bassirou Diomaye je crois que Pastef wala les la coalition bi nga xam ne moom nañ nar a créer ils vont pas prendre le risque ne dañ koy investir dans la mesure où ka nga xam ne mooy le principal euh, candidat Ousmane sonk lii nañ teg ci ndoddam te leer na leen xëy na buñ ko investir du jàll donc Bassirou nga xam ne tamit dañ ko jël dugal ko ci dossier bi buñ ko investir les mêmes faits donc maintenant tu sais la crainte c'est quoi mooy de voir dans les prochains jours képp kuñ ne mooy candidat au Pastef ba ma tudd tu vas tu vas subir le même sort mm, mm, waaw mm, man nag bu doon waaye ma ma waa Pastef damay daal di présenter vingt candidats ma xool ndax vingt yëpp daañu leen jàpp dugal leen ci kaso bi wéetal <laughs> si euh, <laughs> on attend de voir parce que fi mu nekk nii ci ñu jëm euh, c'est sûr que mbir yi dina génn ñu ñëwaat ci beneen point bi avant ñuy ñëw ci Demba moo di ne euh, l'affaire Mame Boye Diao gis nañ ne affaire yi ni muy accéléré Issa mi ngi koy wax déclarer sa candidature limogeage dem stade ñu ne ko doo fa dugg ak yi ni mel on peut assimiler ça à la réalité politique wala comédie show boo xamante ne li ma doon wax déema une victimisation pour avoir benn capital sympathie xam na dañuy yàgg waxtaan ci scénario depuis affaire Adji Sarr lañ laa la waxoon ni ko gars yi ndeysaan malheureusement mun nañu lépp mu des scénario et cette histoire avec Mamboy Diawo mu ngi wane à peu près euh, ni que lii ñuy bëgg a teg li ñu bëgg a jàllale li ñuy bëgg Sénégalais yi jàpp ko euh, c'est pas la même chose c'est pas c'est pas en fait euh, la réalité bon. il a été limogé à six mois. même pas six mois c'est à quatre mais d'accord mais ah ouais, on oublie de dire aux Sénégalais que ñoom les fonctionnaires là et les ministres là bu ñu la limogé. six mois durant. Mm -hmm. tu continues de garder ton salaire, salaire traitement. Mhm. donc moom wàññiwul dara ci moom. surtout que nag nit ñi ne yàlla may na ko am na alal bu bëri bari bëri donc loolu wàññiwul dara ci moom mooy benn ñaar quelle la pertinance Mame Boye Diao. sitoyen sénégalais bokk ci APR ba démb ci midi ne day dem stade seetaan yi football ñu ne ko doo dugg mais c'est c'est c'est le sommet c'est le sommet vraiment de la farce maanaam qu'est-ce qu'ils veulent mettre Mame Boye Diao dans une position de victime non Mame Boye Diao oui Mame Boye Diao vaut mieux que ça c'est-à-dire que tey jii bu takkoon fitam rek dem demal boppam rek damal boppam sénégalais mun nañ ko jox lu ëpp buy victimiser wu nii sa mm-hmm. je dis c'est un risque de lui être préjudiciable te jaru ko mais vidéo bi aussi li ci man li ma ci xaw a jaaxal mooy un peu boo xoolee bi ñu koy def boobu fekk na affaire yi leer nañ lamp yi